sekdalaydan Lorulangpa Flafayda Moabe flafayda Kena tulaye Flafayda Moabe flafayda Kena tulaye Flafayda Moabe flafayda Kena tulaye certificat l'union du la teranga Marodi Njaay gaynde na kim leew ci mel ni cengo yu yoo jemeen bi Omar Gaye Seck amaana ci ñooñu Fadiga am ni laaji قلب كله تقيلة لما تاني مرة لا الخبر فايدة وعبر كلها فايدة كلها فايدة وعبر كلها فايدة

dab, dab, Musare. Dab, dab, Senegal. Dab, dab, dab, dab, dab, Musare. Nella di nek musati. Hey, neki bay wani, mujahat. Nella di la kudem, mukotat.

Mom durakal lamba moo di buuru àll bee fu la fekk dalay daan loolu la ñëpp waa fulla fayda moo amee fulla fayda kenn ak ñoo la yee fulla fayda moo amee fulla fayda kenn du la yee fulla fayda moo amee fulla fayda

margaises Amana tinonu la nyuho no fadiga Ila jiju Mune pungwere tek tiju kalle pulu tidef Nama seni malo Lagal khamne tek lalo lan manul Sulu yene reka festef Lalo lan man Full of fighter, oh I'm full of fighter Hella yeah full of fire, oh, are full of fire. Hello, hello, full of fire, oh, are full of fire. Hello, hello, Gaine qui me way, Betina my way. na kumoye la दिया ये ये अपने Sere, tap, tap, Senegal, tap, tap, tap. pra poder comportar La comunión así como mujer Fatigué como yo era Eu falei do mano que esteja aqui Eu falei do mano que esteja aqui asalaamaaleykum mbokk yi mbokk yi Jagambal ak Ngomen maa ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di kontaan torop ci teewaay bi ñu am fii tey jotaay bi ñu fi am mu jëm ci wàllu sport waaye bala may sore damay tàmbalee nuyoo bi chef du village bi ma teg ko ci loxoom ma teg ko ci loxoom mu yegg yeggaleel ma ko ci waa dëkk bi teg ko ci chef du village Ngomeen aussi mu yeggaleel nu ko ci waa Ngomeen yëpp. ah ñu leen di xamal ni ñun kër ci gox bii lañu bokk ndax fii li Moussa Gaye wax léegi moo fi mos a am fi la ñu jànge fi la fowe fi la ñu defee lu nekk ba yàlla yóbbuñu fa ñu nekk tey li waral nag tey ñu teew fii jëm ci wàllu sport sport football la tàggat yaram la waaye dafa jëm ci wàllu wér-gi yaram a ah, luy dajale nag ay nit lu am lu mu làcc muy maanaam dégloonte foo agré te final bi ñu fi gis tey defe naa ni rafet na trop neex na lool. bu loolu weesoo ñu dellusi li jëm ci nga xam ne tey moo nu fi indi presque ci wàllu politik bi ñun kët ñu dégloonte tuuti. ndax ñun dañu jëm ci benn. étape boo xam ni dafa am solo torop ci sunu commune ci sunu gox te bu ñuy wax commune di wax gox ñun ñëpp la amul mag amul ndaw amul jigéen te lii ñuy dem di wuti dañ ci am yaakaar ni bu ñu àndee ñun ñëpp ku nekk ci li man ci wàllu xam-xamam ci wàllu alalam ci wàllu dooleem war nañu mëna yëkëti suñu gox ba mu bok ci gox yi gëna a ci Sénégal ah, ñu sétlu nak ni suñu commune bii bi ñuy xeyma commune yi gëna nekk ci ginaaw ci la bok ci doxalin bi la ci nit ñi la ndax ñun ñëpp ku nekk am ci responsabilité lu tax ñu wax loolu responsabilité bi mooy alal lañu amé dafa am ñu nu ko dénk ñu ko bu ko ñu ko soxlo avancement am njëriñ am soxla yépp faju dana tax ba xeyna li ñuy jangantel ci walu wér-gi-yaram ci walu njàng ci walu xalé yi nga xamni dañuy jël mbëk mi yoy yépp tay mooyoon lañ ko safara nan lañ koy soppé nak nan la suñu responsabilité nekké deggin la laaj ndax ñun kat ñoo yoré suñu carte ñun ñoy tan ki nga xamni mo ñuy doxalal lolu nak da ngeen di am fulla ak fayda ngeen seet ñi nga xam ni am ngeen ci ñoom yaakaar ñun nag ànd bi ñu ànd ba fi ñu agsi nii àndu nawle la ndax dañu woote képp ku dëkk ci goxu jama loo am ci xam-xam loo am ci alal loo am ci mën man ñëwal ànd ak ñun ñu liggéey liggéey boo xam ne daañu fi jëlee li fi nekk teg ko ci yoon ba pare nag li ñuy def incha allah ñun ak yéen ñooy ànd di ko def kon nag xale yi li ñuy jéem a teg nii. bu ci kenn génnee ndax suba pour yéen la ñun nag daañu jàpp daañu accompagner incha allah may jaajëfal président wu ASC Dagambal dana am lu ma wax fii léegi parrainage bi jëkk na ma ko proposé booba dama nekkoon ci yoon war a ba mu ko jëkkee jàpp waruma ko woon fekke mais lu ma yàlla boole la tey maa ngi nii jox na ko cooy ñun ñoo bokk nekk ci benn coalition bi ñu àndee ba léegi moom mii itam ak ñu nu àndal ñëpp wax dëgg yàlla kenn xeebu ci sa morom kenn wonu ci sa morom bu bu boo sol ànduñu ci lu dul fulla ak fayda ak lu jëmale kanam sunu gox loolu nag ci la ñuy woo ñëpp ma leen di gërëm ku nekk ci turam ak santam di leen wax wasalaam jigéen ñi nag Mamadou Diop am na lu mu leen wax ñun dafa am lu ñu indi ci doxalin ñu ci kenn jigéen la ñu jiital mhm. mais dañu xam ni équipe mooy doxal moo tax ñun ñu nangu topp ci li ñuy doxal nag fii lay jóge ñun ñu koy saytu ngeen am ci seen ndaw ci biir nag aussi parce que ñu ngi leen fii xaar loolu mooy doxal dëkk bi ba subaa kenn du ni dañ ma bàyyi kon nag préparer leen ngeen ñëw jàppale waa grande coalition lu ñu nas lu ñu nam ñun ñëpp ñu amandoo ko ñu ñaan suñu borom mu maye nañu fekk ko te tal ko te bu boobaa ñu am ndam loo xam ni kenn du ko werante jërë ngeen jëf. maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di nuyu chef de village di nuyu imam di nuyu sama parrain bi di Mamadou Diouf ñu gën ko xam si cooy cooy maa ngi lay nuyu bu baax naan la bisimilah ak sa délégation di la xamal ni la tey dama kontaan ba.

Malick fu mu toll mi ngi nii encouragé di nu fital di nu pousse pour nu gën a ñeme di nu wan yoon fu mu toll. ba ndax ASC bi dañu am ni bureau bu bees muy ay xale rek parce que bureau bi man maa si mag ay xale kese lañ nu booleel ñu dénk nu liggéey liggéey bi ñu dénk nag dañuy woo ñëpp ñu jàpp si mag ak ndaw góor ak jigéen bàyyiwuñu kenn kenn kenn ndax li bureau bi mooy ASC bi te ASC bi mooy dëkk bi te dëkk bi lu koy defar mooy ASC ay xale ka composé ak ay mag ak ay góor ak jigéen dañu bëgg ngeen jàpp si te dëkk si dëkk bi defar dëkk bee ko gën te pour ñu defar dëkk bi dama bëgg ngeen xam ne ASC bi ku nekk na xam ne ASC bi nit da nga war ràññee li nga bokk ak liñ la boole ASC bi bokku leen si dañ leen si boolewul li ñu leen si dañ da ngeen si bokk te nit ki li mu bokk dafa war toog benn moment mu xalaataat si boppam wan ni man mii kenn du ma gën am sañsañ si ASC bi loolu rek moo man defar ASC bi ASC pour ñu defar defar dëkk bi si jeunesse bi lay commencé nu jiital sunu grand yi topp seen ginnaaw cooy maa ngi lay gërëmaat bu baax a baax dama dama toog fu ma toog dama sotti ngooñ ba mënatuma sax téye sama bopp ndax danga ma defal sag gi nga xam lii daal yaakaar naa ni manuma sax tok diga diga dang fi def li nga xani c'est extraordinaire def nga fi li nga xani c'est la première fois toy sigil yàlla dañ la jappalé jappalé bi nga xani té bama lay euh, parrainé euh, sama final bi dama la wo bima la wowe bëgg déplacer da nga ni ma noonoo jarul ngay ñëw ni ma waxa rek li nga bëgg buma la waxee nga ni ma ak lan man la noonoo li rek doyna toy sa présence rek la soxla toy li nga bëgg sa xool yaa ko xam yal na la ko yàlla defal lépp lépp ma ko wax ndax xool bu fees wasalaam. asalaamaaleykum waa Jagambal maa ngi nuyu ku si nekk si turam ak santam maa ngi nuyu chef de village di nuyu imam di nuyu képp ki nga xam ni mës na doon président ASC Jagambal. di jaaral nuyoo bi tamit di nuyu waa Ngomeen di nuyu sama maam ndax tamit balaa may dam il faut ma leeral ndax man sëtu Marème Diop laa rakkam bi mu bokkal ndey baay moo ma jur moo jur sama yaay te ñun sunu waa kër Alaaji Magi Malick Gueye mooy seen kilifa lépp lu ñuy dogal si paafara jaare ñëw si moom bu ko nangoo ñu def ko bu ko nanguwul ñu bàyyi kon damay wax ni man sunu kilifa fii la yeewoo loolu tamit day am tuuti li nga xam ni di dellu di nuyu beral nuyoo le président la président euh, mbay ma Mbaye ndax lépp moom la ndax xeebu ma wax dëgg yàlla moom a jox cër ci biir jagambal te jër bi tamit man tuuti lu ma ko ndax jàppuma ni woon sax am na lu ma mat wala am na lu ma doon ba ñuy yëkkati cër bi nga xam ne lu doy nii di ma ko jox te toujours dam kay wax tamit cër bi lu tax mu gën ma neex dafa dul wut bu fekkoonte ni wut la kon du ñu génn biir jagambal mii te daañu am ñi nga xam ni am nañu xol bi am nañu doole bi am nañu yéen bi te mën nañ ko def kon tey moom dama jàpp ni sagal ma moom moo tax mu yëkkati bés bu doy nii tekk sama loxo maa ngi koy gërëm di ko sant di gërëm tamit ñi nga xam ni ndax jagambal yàgg naa fi am relation ak ñu nekk ñi nga xam ni tey dañuy baana baana fi muy ñoom Ali Mbaye ñoom Bekaay ak ñoom ñëpp franchement dañu mës a bokk liggéey te liggéey bi dafa rafet maanaam lu ñuy wax ñoom ñoo tax ma gën a ñeme jagambal ndax ñi may liggéeyal si xaalis lañuy liggéey si maanaam si jënd ak jaay te kenn musuma si def li nga xam ni lu ma metti la kon loolu moom moo tax ma gën a ñeme jagambal xam ne ñu jub lañu may leeral tamit comme nuñ koy wax dafa am benn mbaxane bi ma xam ni dam koy sol muy mbaxane politique naa si wax tuuti mais may leeral lenn ay politique taxul lii ma jo indi ko fii si waa jagambal dam kay leeral parce que dafa jaral leeral dam naam nag damay politique waaye bañ may wax dañ ma wax en tant que président zone ma nekk tamit si ki nga xam ne acteur de développement la te loolu yaakaar naa ni leer na ñu bëre mais du ñu ñàkk nag xëy na wax si politique fi ñuy waxee si politique mooy lan mooy que ni nañ leen góor góorgóorlu pour li fi nekk ñu xam ne ñun ñun ñoo ko war a dindi ndax nag sunu élèves yi ñun ñi nga xam ne ay parents lañu dee nañu si jënd fourniture yaakaar naa ni mënul weesu benn kaye wala ñaari kaye kooku yaakaar naa ne kuy def séy yi sax daa am lu ëpp lool suñu demee suñu santé man si santé la nekk Kawri mi c'est kii si CDS la nekk secrétaire exécutif la mais mun naa la wax ni ñun ñoo ngi fiy def trois ans benn yoon la ñu mës a am dotation bi nga xam ni def nañ ko ci poste de santé yi kon dama jàpp ni yooyu yëpp bu ñu ñëwee Mamadou Diop ñëw na si foncier bi ñun ay baykat lañu dañuy loué hectare trois cent mille deux cent cinquante mille te ñoo ngi jox suuf si ñeneen ñi nga xam ni kenn ku nekk si ñun war na xam nan lañ ko ko joxee parce que tey nit lu leer si boppam rek mën na si bañ a indi tuuma mais lu lëndëm nag tuuma dañ si am ndax tamit tey bu fekkente ni dañu jox benn société war nañu wax ni de société bii dañ ko joxe kii gi nii lañ ko ko joxee lii la war lool askan gi at bu nekk képp ki nga xam ne chauffeur la am na droit liggéey si képp ki nga xam ne am na qualification am na droit liggéey loolu bu leeree si bopp nit yi yaakaar naa ni njëriñ lay doon si askan gi parce que ni askan gi looy leen di liggéeyal na fekk ni li nga xam ne dafa leer seen bopp mais booy def tamit même bu fekkee njub la te leerul seen bopp loolu ngay def noonu ñoom seen waal bopp dañ koy diingat parce que xamuñu nan la demee kon ñun ñun nag nañu góorgóorlu am fulla am fayda xam ni bu fekkente ni toog nañu fi ñaar fukki at ak juróom soppeeku amul soppeeku mënul am si juróomi at yu si topp kon nag ñaar rek laay wax nañ leen changé nañ leen changé te tamit ñu góorgóorlu parce que jaaraat dan fi am la grande coalition dafa am fi nga xam ni foofu la bëgg maanaam yóbbu politique bi maanaam du ñu wax di xaste amuñu jotu xaste amuñu jotu sosal kenn mais am nañu jotu li nga xam ni la ñu jàpp ni lii de bu ñu ko defee askan gi dañ si gis seen bopp daañu ko génnee balaa ñu ko génn daañu waxtaan ak askan gi ñu wax ñu seen jafe-jafe ndax kenn ñëpp xam nañ ni def nañu sunu lancement assise kon tey fi ñu toog ñoo ngi ci biir assise yi xëy na nag investiture yi ñoo ñu tënk mais bu paree daañu defar ay forage zonal daañu ñëw si eh, kii personne ressource yëpp. lépp li nga xam ni maanaam jafe-jafe la ci biir euh, commune jama daañ ko jël bu ñu paree daañu def restitution bi toog ndax tamit nit ki bu fekkee da nga koy jàppale da nga war a xam lan mooy jafe-jafe mu jóge si moom bu jógee si moom nag bu boobaa boo ñëwee boo koy andil du ko jaaxal moom mu xam ne lii mooy sama feebar lii laa jàpp ni mooy mooy saafara bi ndax dama ni la grande coalition mun nañu lim ñi nga xam ne mën nañu bind programme mais nag loolu du safe xam nga lu taal euh, du safe dama ni toujours li ñuy def pour askan gi nañu ko jëlee si askan gi bu boobaa ñu mën ko delloo si askan gi lenn rek moo ñu tax a jóg moom mooy que ni askan gi ñoo ngi ñaanal yëpp jàmm ñoo ngi ñaanal yëpp jàmm wasalaam.